أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نور الإيجادي والإمدادي والاستمدادي نور الكون وسر الوجود وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد مطلقا للذات الباري ثم سلامنا على المختار بشر الوجود مركز الأسرار سري سؤوني مجمع الأنوار حق قدره مقدار عظيم نيجي سنت يالا بو باخ دي جولي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ak ay saabaam gannaaw bu gal defee ak ay malakaam sant mboolem ku gëm yàlla mu julli ci moom jataay bi képp ku fi teew wóor na mën a yaa ngi jul ci yonent Yàlla Muhammad sirran wa jaharan leela wa nahara ñu ngi gërëm borom jataay bi ñu ngi gërëm ki nga xam ne ruu fi daje yépp roxo mu ci ëpp doole mu xëcc leen ñu ñëw fii ci teewaayam bi ca barabam bu tedd bii barab bi sang njaay xam na ko bu baax a baax a fi ba tey di ñëw fii ñëw ak taalib ak sëriñam ñëw sukk ci kanam ku tedd kii di coono alpha saw du benn yoon du ñaari yoon jaameel bi toog fii asamaan gi kontaan ci moom ndax bu ñu alamul ijaad kooku mooy asamaan ak lépp lu nekk ci kawam jaam bi moo feeñal mbaxam xur yu buree boobu ñu lay ndokkeel Thierno Alpha Sow suuf yaa ko leeral démb liñ ko mari muy suuf kese la waaye watara jibaala tahsabuhaa jaamidatan wa hiya tamurru marra sahaab ñu ngi lay ndokkee Thioné Alpha Sow di bég lool di am kontaan ci ñëw fii ci xadara bii ci waxtu wii ci saa si ci dëkk bu tedd bii nga xam ne Misri tagg Cheikh Ibrahim Baye ngi dund mu ngi dund mooy jël ay abyaat di ko jox Cheikh Ibrahim بايو وچ دارا مويلان رايتو يوم الجمهي عبدا وسيدا وقد كنت قبل القبل في هذا القدس كما كنت قبل القلق لله ساجدا وقد وجد عرش والله والكرش في أنا بحمد الله في مغرب الشمس نقول يا جرم باخ تنوي nga xam ne mooy horo seno misri nee na biru boo wati quatre mille quatre mille chirrul taxaqaqa wasaane bi rukk baana sarqa ma maxriba ñu ngi lay gërëm doon ndokkeel baax cheikh ibrahim dafa xol baanu nu buut min aadama ila insa sa nga ba fa nekk mooy sayduna muhammad mu xool maqama wilayatu ca kanamam Gafanaka sang mooy Cheikh Ahmadou ak Tijaani bàyyi xool ñaari maqaama yore mu ne kullu faalin saara naylan min tihaamin aw yamaani kullu sirin fil baraya madduhu sidu Tijaani ñu lay gërëm baax Cerno ñu ngi lay ndokkeel Cheikhu Tijaan Tijaan yi laana lil xaleqi fayduhu Cheikh dafa bind mu ne أنا بالوادي ونسكنهم بالوادي ما يتقروا ويك أي رزم يتقر ولا بنقول لهم يقر نك بنقر شيخ ما يقر أم بين الدقل قبع الله أناسا قد رأوا خير كساني ما ترى من جمال غير محبوب قليا دار محبوب تجاني بين السائق بي للمغاني عصب دور القواني ah cor ñu ngi lay gërëm ci gàttal ñu ngeen dëkkee lu baax di wax ne Thierno sa liggéey rafet na Thierno Alpha Sow sa liggéey rafet na sa liggéey set na sa la am na di jàpp ama tawfiix ruux yi nekk fii yàgg kontaan nañ ci yow kenn ku nekk ba jógee sa kër am lu la réeré woon mu ñëw ci yow mu feeñ ci sa jëmm ji barka rasulullahi li ma wax nii du bakkan dëgg la goo xam ne ba saa ki taw dara mën ko pi yàlla bi nag dafa am ay nëbbatu am ay làqatu waaye bu fekkoon dañ koy wax dëgg dëgg dëgg ki toog fii kan la àddina dañ tukki su ko waxee asamaan suuf laa leen te laa wax ndax ak di daani may taba li xëyri yi ñaari contraire fu mu dajee ci la dajee asamaan ak suuf contraire la guddi bëccëg contraire la góor jigéen contraire la ruu yaram contraire la صل على اثنين رمسة كل اثنين وسره وساق أصل كون بارو أصل موتو في تاي بارو أصل ماكو واخ بارو أصل ما يزهد قبل تجلي لا شفة ولا اسما ولا خلافة ولا أين ولا كيفية مقام الشاقي والمقي والدكي آه شرنا نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو ñun day jóge nañ Dakar ñëw fii ci yow te li tax ñëw fii du dara lu xam-xam bu rëy bu nekk ci sa bët yi boo xam ne leeral nga ko jaam yàlla yi lu leer ci xol ni ñëpp ba ñëpp bég ci yow mbool mi tax fii yéen ñu ngi ci yow ñu ngi lay bégee ñu lay sant ñu ngi lay gërëm di am borom sawaata ma daw ma defal tawfiix yàlla yàlla may la fii fanu gudd lool lool lool ànd ak wér yàlla barkeel barke njaboot gi yàlla yàlla aar aar sa njaboot yokk sa maqaama yokk sa lijaaba yokk sa martaba fanu gudd lool ànd ak wér alal ju bëri ànd ak barke wërsëg yaa tutandooy xel mu dal lool ak xol bu dal lool ak dund gu teey yéen yàlla defal ko carro ak njaboot yëpp mbokk yi wax nañ léegi sama sama doom yi doon jàng léegi sama soppi yooyu nga xam samay samay sël lañ sama jarbal lañ ñu ne wal saaliyaat xayru yi naka sawla xayru mararat ndaw lu day waar desati julli léegi ñu ne xanga may lan al alxilaafatu hiya musalli fam des na fa nabqa baqan bin nabi muhammad mata bayna waqta ma fati hina man waqad hanat bay mu ne taxta qadaa'i fa ma xatuhum fi sharqi wal gharbi fat fatam fuñ jëm lutax baay ma ne walim laa pourquoi pas wa ayni yow ma ayni Muhammadu sarra surruhu fi haykal warwaay caw ñu lay gërëm laa taqi fi hayatin wa ura fawqa alkibaari bila kaddin wala tahabbi udrukul man mada wa afatu man baqa caw ñu lay gërëm ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay zaara ñu ngi lay bëgg ñu ngi lay sopp ñu ngi jeex ci yow def ci yow zaara ak baatin maa ngi nuyu ñëpp di leen zaara wasalaamaaleykum jaajëfee Baye